Ablaay neexu leenam way leen Abdoulaye neexu leenam nee ko dimbala sa ndey bu dee taxa tedd yow nee ko teral sa yaay bu dee joxe barke laay lii lépp yaaya ko waral nee leen ko Baay nga murit saadix nga Cheikh Ibra nga gëm xolal baa doon la matut président fekk du yo réew ana ñi ko bëgg ana ñi ko bëgg nee leen dañoo laa laalaake ñun dañoo laa laalaake di nuyu waa Route de Bambey sama waa mbootaay ana ñu ana waa waa Route de Bambey maa leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu waa koñ bi di yëkkati nuyoo bi nag di ko teg ci suñu loxo mag ji di suñu papa di suñu lépp di Pape Sylla la di ko sant ndax lii lépp bu amee moom la fan ni yëpp toogul mi ngi ñuy woo naan ñëw leen ñu organiser suñu frère parce que lépp benn la mooy nuyu jigéen ñëpp di sant ñëpp. di leen wax nag euh, Assane si la maawo yow mën naa wax ak yow sama rakk nga. te loolu bu amee ren loolu suñ ko mënee ren grâce à Ablaye Sylla ah, grâce à Ablaye Sylla parce que heure bii daaw suñu mbedd koñ yi kenn amutoon foo jaar. ren Ablaye Sylla moo fi indi ay pompe ci trois jours mu vidéel ñu ndoxu koñ ba presque la fa des bareetul ñu ngi leen ciy sant di leen ciy gërëm di di leen yóbbante nag ci moom parce que ñun gisuñu Ablaye mais mel na ni Ablaye lañ jàkkaarlool ndax yéen ay ablaay yéen ay tànk Ablaye yéen ay lépp Ablaye ne ko ñun waaru route de Bambey pare nañ ci dimbale ko dimbale ko jàppale ko ndax ku ne Ablaye Sylla ne Ndeye Soukeye Sylla xam ne c'est la famille kon ñun pare nañ pour jàppale Ablaye Sylla ba fu mu yem. di nuyu sëñ Assane ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu Pape Sylla ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar ñun nag ñu ngi ñëwee ci tànki Sadibou Sylla ànd ak soxnaam see mami baaxum ndax Sadibou ñun ñoo bokk koñ dëkk cité ouvrière mu dëkk ñun dëkk bu rafet nag dëkk bu rafet bi mu dëkk ak ñun moo waral tey Assane Sylla mii di fi ñëw mu wooñu ñu ja bàyyi bàyyi li jàppoon lépp ñëw wuy si ko. ndax saad bi dëkk naa ñun dëkk bu rafet suñu xale yi fa nekk yëpp kenn semeetul waxuñu la bu bëggee président bu bëggee nekk président de la république dañ koy voteel mais bu ko bëggul woon sax dañ koy jàppale ndax dafa ñëw site wax dëgg yàlla suñu xale yëpp mu jëlee leen ci chômage benn xale semeetul xale yi cité yëpp ñu ngi ci écotra bi di liggéey ñun femmes yi fa nekk tam ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax ndax dañuy jaay te wax dëgg yàlla ñoom ñi fa nekk nekk ci chantier bi luñ jaay ñu jund ko kon kay ñun dañuy ñaanal wax dëgg yàlla Ablaye la bi bëgg a nekk président dañ koy ñaanal yàlla def ko président ndax ñun dañoo gis suñ bopp ci moom te nekkagul président kuy rende di la boot bu doxee da lay yóbbaale par force te yéen ñii dëkk Cité xam geen ci dara ñun ñoo ànd ak moom ba mu neex fu mu ñu woo dañ koy wuyu takku nañ ba dëgër taxaw di ko xaar woo leen wootee rek woo leen ñu foo leen ñu woo ñu wuyu leen ñu ngi leen di sant di leen gërëm kontaan nañ ci yéen. Inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba. jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ñi ngi leen di ziar yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di tàmbalee ci nuyoo bi suñu mag yi suñu mag suñu kilifa DG Assane di ci toftal sama mag bi nga xam ne ni moom laa àndal ci liggéey bi mooy Grand Alioune di ci topp mooy suñu taaw te taaw mooy bàyyi muy grand pape Sylla di leen ziareen ñëpp askanu Sylla gi yëpp di leen di leen jaajëfal di wax ne dellu si nañ suñu kër fii lañ fii mooy suñu kër fii mooy suñu lépp te nag kër gi nga xam ne fi lañ ñëw këru këru cosaan la këru social la ku wax pap Assane rek tënk na lépp ci Jurbel fépp foo taxaw ci Jurbel boo laajtee kër Pape Assane ñu tegtal la ko wan la ko loolu rek day firndeel dayo bi mu am ci ci dëkk bi ak yërmande gi mu am ci waa dëkk bi ba tax na daal muy lu ñuy rafetlu loo xam ne ni ñun ñëpp ay doomam ñun ñëpp suñu fierte la di leen jaajëfal yéen assistance di leen jéggalu ci xaar bu yàgg bi ak toogaay bi suñu mag moo ñu yónni ñu ñëw pour waxtaan ak yéen di président Abdoulaye Sylla yónni ñu ci askan wi dénk ñu aussi raison bi man ak sama mag bi moom laa leen présenté léegi muy le grand Alioune ci kóolute googu mu am ba dénk ñu raison bi ñuy ñaan suñu yàq yàlla suñu borom yàlla bu yaakaar tas te am nañ ci yaakaar gu kawe kawe ndaxte fii la ñu dëkk fii lañu juddoo fii la ñu fekk baax fii lañu defee suñu lépp te am nañ yaakaar ne fii dëkk bii dinañ fi am dinañ fi def liggéey bu am solo doore ko ci parrainage yi ba tax na maa ngi leen di woo yéen ñëpp ne parrainage yi ngeen jàppale ñu ci ndax jàppale ñu mooy jàppale seen bopp parce que président Abdoulaye la seen doom la seen seen mag la ñenn ñi ñenn ñi seen rakk la ñenn ñi seen nijaay la mooy seen lépp la daal fii la fekk baax fii la fii la juddoo fii la defee léppam ba tax na dellu si na fi nga xam ne nii fii la defee lépp te am nañ yaakaar gu kawe ne tàllal gim leen tàllal loxoom di ko ci fekk si bu soobee yàlla fii nag dañ fi war a amal liggéey bu am solo parce que ñëpp a ñuy xaar parce que dëkk fi nga dëkk ba pare amee fa leneen lu safaan te ñaanuñu ko yàlla te am nañ ci xel mu dal ne li ñuy wut yàlla suñu borom dinañu ko may ba tax na daal taxawaay bi ñu ngi leen ciy woo yéen ñëpp dégg nañ doléance yi bu soobee yàlla dinañ ci amal liggéey bu am solo yéen ñëpp dinañ dinañ ànd ak yéen ci liggéey bi jàppale leen ci niñ leen mën a jàppalee ndaxte nag doomu aadama yi booy jëflanteeg moom da ngeen di waxante li nga xam ne nii boo demee di nga am conscience tranquille ba tax na yàlla suñu borom mën na lépp waaye deful lépp ñun kuñ ne mën nañ loolu laa defal lépp bu ñu jugee rek war ngaa xam ne wax nañ naka su du noonu te ñun bëgguñoo bokk foofu dañuy bëgg lépp lu leen wax rek bu soobee yàlla dinañ ci góorgóorlu xar ci suñ tànk tubéy ba ngeen xam ne lii jëf nañ ci jëf ju kawe foofu lañ nekk. ñun nag comme niñ koy faral di waxee le président Abdoulaye Sylla dafa créer benn association patronat association patronat bi li ko tax a judd mooy injustice bi mu doon dund ci milieu bi mu nekk ci ñaari année yi passé loolu moo tax moom ak ay mbokk entrepreneur am ñu créer association patronat boobu ñu ciy defal ñu ci doon wéyalu liggéey bu am solo ànd ci ak suñu kilifa gi muy le DG Assane Sylla ñu dem ci fu sore sore sore ci Sénégal fépp fu ñu fa dem créer nañ fa ay point focal waxtaan ak askan wi ñu adhéré ci concept bi ñu taxawal fa club cinquante ba tax na liggéey bu am solo boobu ñu liggéey dañ ko war a concrétiser ci parrainage yi te am nañ ci yaakaar gu kawe kawe kawe injustice boobu mu doon dund nag ñëpp teg nañ ci seen bët ba tax na président Abdoulaye Sylla seen mbokk la yéen kenn waru leen a jiitu ci liggéey bi que ngeen xam ko wala ngeen ñàkk koo xam amul kenn ku leen ci war a jiitu liggéey bi ñun ñoo ko ànd lii nag ñuy jooy ak di ko xëccu buñ ci jotee incha allahu rabbi yéen a ciy njëkk a gis seen bopp parce que lépp lu mu bëgg rek lépp li nga xam ne nii nas na ko am ci yéene. fii la ci jiital ba tax na ku nekk gis na taxawaay bi mu am ci raison bi léegi rek am na seede yu fi jib ñuy wax ne assainissement bi fii nii ndox mi xawoon na leen a sonal am na ay jéego yu am solo yu mu ci def loolu bokk ci social bi muy def ci dëkk bi yamale ko rek fi mu dëkk socialu président si la moom dafa wër Sénégal gi yëpp ñun ñii ñëpp boy na suñuy nopp ba tax na dimension bi mu am ci Sénégal amul kenn ku muy jonganteel réew mi ku am dimension bu am euh, dayo bu toll ne moom loolu moom dañ dafa leer ci ñëpp amul ku tolloog moom dimension li muy def ci askan wi te amul lenn lu mu am loo xam ne nii lu jëm ci état la loo xam ne appareil de l'état koo xam ne nii amul appareil de l'état amul benn jumtukaayu état di def li muy def di def ba nit ñi di ko méngaleeg état li muy def wala mu sut li état di def kooku nag bu ne la dama bëgg réew mi xel wal naa dal ba tax na daal ñu ngi leen ci tàllal suñuy loxo di leen ñaan ngeen adhéré lii nga xam ne nii bëgg nañ ko muy ABS 2024 te xam ne yéene yi kawe ku xam président Abdoulaye Sylla xam ko ci social xam ko ci jëf ju baax yéene bi mu am ci askan wi li may faral di ñaan rek ñi muy jonganteel képp ku am yéene bu toll noonu wala nga am yéene bu ko sut yàlla na yàlla may ndam te xam naa ni man xam naa xam nañ ñun xam nañ président si Sylla fréquenté nañ ko waxtaan nañoo moom xam nañ vision am wax dëgg yàlla yërmandey kese la yéene ju baax rek la am ci askan wi parce que yéene ju baax ji mi ngi tàmbalee yàlla suñu borom wërsëgalee lim la wërsëgalee nga bàyyi ko ci réew mi ku nekk xam na ni groupe d'entreprise yii mu créé ci réew mi. amaana bu doon man wala sama morom a naa koo def ci leneen loo xam ne nii sama bopp rek lay jariñ mais bëgg jariñ askanam moo tax mu def fi empire bu rëy bii ba tax na loolu daal bëgg nañ ko pérenniser ànd ceeg yéen population de Diourbel ñu amal ci liggéey bu am solo tàmbalee ko ci parrainage yi xeex bi nag moom foofu lay tàmbalee ci parrainage bi képp koo xam ne nii ni nga ko mën a jàppalee ci tolluwaay bii ñu toll ndaxte mbir mi nag bokkaguñu parrainage bi benn étape la boo xam ne ni war nañ ko franchir ni koy franchir ak ni ngeen ñuy jàppale mooy ngeen defal ñu jàppandal ci seen carte yooyu noonu loolu moo ñu mën a permettre ñu bokk ci mbër yi war a jongante parce que nag am na lim boo xam ne nii tëggal nañ ñu ko lim boobu ko matalul yàlla suñu borom day dogal duñ ci àgg te ñaanu ko yàlla te nañ xel mu dal ne dinañ ko matal ba ëppal loolu moom yaqiin am nañ ko ci ba tax na ñi ngi leen di jiital ci loolu di leen di ñaan di leen tàllal suñuy loxo ne doomu réew mi doomu raison bi dellu si na fi nga xam ne nii fi la fi la defee léppam tàllal leen seen loxo bëgg ngeen accompagner ko ci vision bii mu am muy ABS 2024 dañuy dellu santaat suñu borom julli ci suñu sang bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan suñu borom bépp doomu aadama bu fi jógee yàlla na ko suñu borom yërëm ñun ñu fi des ci kaw suuf yàlla na suñu borom sutural ci ñu ñu ñaanal ñu ci gën a fësal suñu suñu papa suñu xarit suñu turandoo Pa Assane Sylla nga xam ne tey su ma taxawee fii jël micro di wax pap lu lu diis trop la ci man ñëw ci kër gi sax de temps en temps duma fi fekk paa bi day day diis sama xol paa bi ko fi dugg si sa te gisoo ko ci ëtt bi mu kafree tooñ la lu lu diis lay doon damay insister fortement ci kan mooy président Abdoulaye Sylla je pense que comme ni ko euh, grand Samba waxee sànq xëy na man bi may mujjee gis xale bu ndaw laa ba léegi sax naa sikkim je pense que ñu bëri fii tamit ba ci grand Pape la yar président Abdoulaye Sylla je pense que yéen ci seen bopp am na lu bëri loo leen ignoré ci président Abdoulaye Sylla li tax fan la jaar ba tey ñu mën a taxaw di défendre candidature am tey mën naa wax ne bu ñu commencé def lii presque véritablement il y une semaine bi ñu demee ba jël suñu fiche de parrainage président Abdoulaye Sylla mosul woon xalaat def politique il y a mois ay kilifa yu mag bi ñu ko see ñëw toog di insister ne ko li ñuy ruumalaat ci dëkk bi ne il faut véritablement ak vision bi nga am taxawaay bi nga am il faut nga jéem a xool ndax mënuloo jël réew mi maa ngi ko fekkee dafa reetaan pap ne ma mais Assane xanaa ñun bu ñu demee politique dañuy torox parce que gis na ni politique bi men gis na ni politique méttee et gis na xëy na jàmm ju ñu am ak confort bi ñu nekk suñu xësee ba dugg ci lii li ñuy li ñàkk et dans sa tête yaakaar na amoon na yéene xalaatoon na ne ci économie bi mu toog bi mu nekk doon na fa mën a changer les choses donc ci loolu laa loolu laa bëgg a dellu dellu si ngeen déglu ma tuuti parce que dafa am importance ci processus bi président Abdoulaye Sylla moo fondé groupe de société bu ñuy wax Ecotra société yu bari la dem na presque ba ci fukk juróomi société bi ci ñëpp gën a xam mooy Ecotra Ecotra nekk société BTP mu fonde ko il y a une vingtaine d'années ñu ngi commencé woon par SLC Sylla logistique et et commerce moo continuer dund ba nekk Ecotra Pape mais diggante bi muy créé groupe Ecotra boobu ak léegi président Blay Sylla nee na bi mu koy fonde presque yorul woon dix mille francs ci poche ba tey ni mu mënee am compte bancaire bu am ay milliards diggante ñaar yooyu daf ci jànkonteel ak ay difficultés yu doy waar sëñ Saalum mi ngi ko doon junj tout dama ciy dellusi si yooyu mën nañ ko tënk ci ñetti point pour mu bañ a gudd bi ci njëkk mooy problème accès financement yi bi ci topp mooy tracasserie administrative ndey su koy ni ñu tëggee dëkk bi ni ñu organiser suñu dëkk ak bi ci tegu mooy problème accès marché yi mën naa wax ne ñetti problème yu majeur yooyu moo jur tey fii la ñu taxaw problématique financement yi dafa nekk lu doy waar dafa nekk benn góom bu doywaar boo xam ne bu ñu ko réglé wul bu ñu ci trouvé wul ay solution fii ak un siècle Sénégal nii réglé ma semaine et sànq coopérative yi fi nekkoon yëpp ba waa usine ñi ngi koy wax ak ñiy jooytu ni il ñu jàppale leen dama koy fàttali d'habitude ne bu ñëpp amoon xëy wa bu doon financement yëpp ndey su koy dugg na fi mu war a dugg ñi toog fi ñëpp kenn du toog fii dañu déglu heure bi ci timis bi bu doon tey suñu rakk yi suñu bàjjan yi suñu xarit yi suñu mag yi financé nañ leen wala dëkk bi organisé nañ ko ba mu am liggéey ni mu waree suñu wootee fii nit ñi dañ naan boo paree yónnee lañu ko kenn du toog fii duñu déglu ndax kenn du ko tal parce que boobaa nit ñi dañuy xëy 6 heures du matin di liggéey ba 21 duñu tal ñëw toog fii duñu xool donc problématique financement yi dafa nekk ndis koy lu doy waar et kenn ñu ko wax parce que ñi ko war a wax yëpp dañu ragal lu tax mu doy waar ñaar ñooy financé ci dëkk banque yi ak agence état bi banque yi ñooy financé ak agence état bi yéen seen mbootaay ñooñu rek ñoo leen mën a financé boo jëlee agence état bi gouvernement bi dafa jël ces dernières années ay milliers et des de milliards ay junniy milliards la jël teg ko ci ay loxo mais ki ko teg seen loxo depuis ci kaw président bi ci boppam ministre bi directeur yi nga ko jox ak chef d'agence yi ñu ko jox ñu war a joxe financement boo leen ci xoolee bu baax kenn ci ñoom mosul créer emploi boppam maanaam kenn ci ñoom nekkul chef d'entreprise xamuñu en réalité boo téye xaalis nan nga war a créer emploi ñoom yaakaar nañ ne tey jii nii soo yoree benn un milliard nga ne damay ñëw fii Dembewele zone bi yëpp wala Thierno Kandji bi damay ñëw pour créer emploi boo leen joxee un milliard fi ñëwee ni ñuy def mooy dañuy wër ñu laajte fii ñan ñoo fi am liggéey ñi am liggéey ñëw ñi defar poulailler ñi am magasin ñi def coiffure ñi am seen business ñi am BTP ñu leen comme yéen am ngeen liggéey yéen taxawal leen nii léegi après ñu dem ñi nga xam ne ñoo toog ci garab amuñu liggéey wala ñu am seen diplôme amaguñu liggéey ñu leen ah comme yéen amoo leen liggéey kon yéen lañ leen di jox xaalis ngeen dem def seen i projet bu boobaa dinañ ne ñi am nañ liggéey ñii tamit créé nañ leen liggéey ñu ne rek dëkk bi yëpp am nañ liggéey alors ko loolu ci seen ñàkk xarañte la ci seen ñàkk xarañte la parce que kenn du créer noonu emploi état du créer emploi état pourvoyeur d' emploi la état day dooleel ay entrepreneur entrepreneur yooyu créer emploi normalement bu ñu ñëwee ci zone bu mel nii dañu war a recenser suñu yaay yi jigéen yi jeunes yi nga xam ne déjà ñi ngi yëngatu ci lu bari ñu ñëw ci benn ndey su koy ne yaa ngi yëngatu am nga benn caisse avec wala yaa ngi def say say poulailler ñu ñëw ne ko ndey su koy yow dañu lay dooleel jox la peut-être 2 millions wala 5 millions boo doon def 1000 poulets bëgg nañ nga def 10 000 poulets mais da ngay obligé dem làmb ja wala fii ak fii nga recruter 5 jeunes boo recruter 5 jeunes yooyu ñu jox la 5 millions par exemple nga ñëw ñu boole ak ñu lay jàppale au de sorte ko au bout de ay 1 an wala 2 ans non seulement yow sa activité di nga jógee de 1000 poulets à 10 000 poulets sa chiffre d'affaires dina yokk xale yooyu nga jël di nga leen jàngal liggéey et parmi ñooñu nga jàngal liggéey ñenn ñi après dinañu mën a parce que non seulement xam nañ liggéey bi mais xam nañ nu ñuy gérer xaalis ñeneen ñi xëy na du ñu nekk ay vrai entrepreneur ñoo ñu des ci yow noonu la ñuy créer emploi état du ñëw ne damay jox nit xaalis mu créer ko parce que koo fi jox xaalis te musul manipuler xaalis musul gérer xaalis nga dem ubbil ko sax quincaillerie yi duy ko ba mu fees au bout de 6 mois day seey looloo tax junniy milliards yi ñuy jëy jël di ko injecté ci économie bi naan financé nañ nit ñi au bout de 6 mois wala 1 an xaalis boobu day seey looloo tax presque 10 dernières années yi presque chaque 1 wala 2 ans dëkk bi am ñu naan tel politicien moo tax ñu génn wala génn mais non c'est parce que dañuy injecté xaalis boobu day seey après au contraire dañuy gën a endetté sax ñooñu parce que di nga fekk koo xam ne daan toog ci taatu garabam nelaw ba 11h yeewu di débrouiller kenn doonu koon ñaan kenn doonu koon sonal mais le fait que nga ñëw lebal ko xaalis boobu xaalis bi seey au bout de 6 mois léegi kooku day nekk koo xam ne amul woon bor mais léegi am na bor donc da ngay gën a appauvrir nit ñi ñii di làqatu ñii di daw di dem ci yeneen régions yi et cetera. mais loolu li ci tax li tax dëgg ñu egg ci situation boobu seen ñàkk xarañte la c'est-à-dire boo leen xoolee bu baax profilu de président la république ba ñuy distribuer loolu la plupart d'entre ñoom kenn musu ci créer société bay créer emploi dañu nekk ñoo xam ne ay fonctionnaires lañ woon ñu leen di fay ba ni ñu accéder ci pouvoir bi ba ni ñu nekkee ministre mais xamuñu véritablement jànguñu ko et musuñu ko def ñaareel bi xaalis boobu tamit suñ ko joxee ñi nga xam ne mënuñu gérer xaalis dañuy jël beneen parti xaalis bi dajale seen i militants jox leen ko donc loolu jar sax ñu ci ñu ci ñu ci étalé wu. banques yi nga xam ne par contre ñooy financé wax naa sànq ñaar ñooy financé banques yi ak agence état bi banque yi financé tamit c'est la même chose dañu toppandoo trop tubaab yi ba pare évoluer wuñ comme tubaab yi. tubaab yi dans les années 60 dañu ñu fi indi lu bari ñu toppatoo leen mais amuñu xarañte bu tubaab yi di évoluer ñu dem xool évoluer ak ñoom. ci mbirum prêt dafa am ñaari façon prêt prêt à la consommation ak prêt pour liggéey ñaari façon lebal yooyu mu am maanaam ñu lebal la parce que da nga bëgg a jënd terrain ñu lebal la parce que da nga bëgg jënd oto ñu lebal la parce que xëy na danga bëgg a fay say jàng doom euh, façon wu boobu wala sama genre gi bëgg a takk ñetteel wala ñeenteel bëgg ku mel ne xëy na Euh, Cheikh Sadou bëgg dem takkaat beneen séeréer wala benn benn tukkuleur ne day leb pour dem pour dem takk ko loolu la ñuy wax prêt à la consommation prêt boo xam ne danga koy consommer mu jeex du créer benn valeur loolu nit ñi am nañ ci droit tabaski jot na leb naa xar màggal jot na leb naa pour dem teral sama sëriñ loolu prêt booy lekk la. prêt boobu consommation banque bi mën na ci teg taux bu ko neex moom ak ki koy leb la ndax moom moo xam. mais yeneen prêt yi nga xam ne prêt pour liggéey la moo la ñuy wax prêt add value prêt boo xam ne day créer de boobu kenn waru ci teg taux nday su koy nit ku su demee soxla un million pour defar poulailler wala defar poulet parce que nee na xëy na 31 décembre bi mi ngi ñëw su demee leb un million wala deux millions banque bi daf ko war a jox un million wala deux million yooyu suy delloo mu joxaat ko un wala deux million parce que bénéfice boobu muy am ndaw na ndaw boo xam ne moom su ci tegee ay taux rek du ci génn yenn yéen avec xam ngeen ci xam ngeen ci dara donc Sénégal ñaari prêt yooyu la ñuy jaxase de sorte que da ngay gis ku soxla 600000 sax bu dugal benn carton wala ñaari carton poulet dem leb ko 600000 boobu ñu tegal ko ci peut-être 100000 wala 200000 francs mu war a fay ay 800000 su jaayee ay poulet ba pare mil la ci am ba pare moom war 800000 la war a fay muy dàqanteeg moom dàqanteeg moom ba mu jeex. donc et alors tubaab yi évolué nañ loolu bu baax mooy li ñuy wax prêt à taux zéro. booy def prêt ci nano crédit maanaam crédit yu ndaw ndawaan yi boo ciy def prêt banque bi warula ci tegal dara te loolu président Abdoulaye Sylla comprendre na ko parce que États-Unis bi muy dund Europe bi muy dem nit yi muy dajal ci yu nekk ci kawe euh, ak transformation architecture financière monde bi mais malheureusement malheureusement suñu gouvernement yi comprendre ñu lool suñu ministre yi comprendre ñu loolu moo tax ñuy bàyyi aujourd'hui bu suñu yaay soxlawee sax benn séchoir bu ndaw buy jar un million pour di sécher cere mën ko jaay université Bambey su ñu demee leb 1 million banque bi ne leen 1 million 200 wala 300 ngi ñu fay kooku fii ak 1 an 2 ans du mën a fay séchoir ba wala lu mu liggéey banque bi la koy jox. loolu président Abdoulaye Sylla comprendre ko moo tax notion de financement yi président la Sylla daf ko dund bi ñuy wër dëkk bi ci c cinquante bi ñu gis ko macha allah ñu teg ci ay solution ñaareelu problème bi mu bi mu dund mooy tracasserie administrative yi. ni ñu tëggee suñu administration ndey su koy Sénégal du mës jur ay champion bu ñu ko bàyyee nii senegal du mës a jur société bu mel ne ku ñuy defar iPhone Sénégal du mës a jur société bi comme ñuy defar ay Coca-Cola Sénégal du mës jur société comme ñuy defar WhatsApp muy yëre ak dàll ak téléphone yi ñu yore micro bi ñu yore nii defaree ko senegal tant que ñu ngi suñu administration ni mu mel ni ngi mel Sénégal du mës produit benn micro nga gis micro bi ñu bind ci euh, euh, Silla wala Fall wala Diop et cetera ñoo ko def du ko mën a def. et li tax particulièrement duñ ko mën a def mooy ni ñu tëggee suñu administration mooy corruption bi guerre bi foo dem bëgg a fayeeku wala bëgg def dara ba parfois suñu mbokk agent état civil yi boo bëggee dem grand pape parfois da ngay dugal dara pour am dara ñun boo ko xoolee ci grande entreprise yi dangay def sa déconte wara a fay say collaborateur def sa facture dem déposé da ngay fay pour ñu fay la mu nekk lu diis lu metti loo xam ne aujourd'hui benn entreprise mënu ko dëkk looloo tax entreprise yu bari disparaître depuis vingt ans entreprise bu dem bay naaw rek ñu xëcc la nga daan waat bi ci mudd mooy marché public yi marché public boo leen ko seetloo projet yu mag yi ci dëkk bi yëpp ay société étranger lañ étranger lañ koy jox projet yu mag yëpp loolu xewi na ci àdduna bi yaa ñaar fukki at ci ginnaaw xëy na mais aujourd'hui sénégale yi xarañ nañ xarañ muy fii muy à l'étranger de sorte que euh, projet yu mag yi comme stade président Abdoulaye Wade bi ñu tabax Diamniadio terre bi ñu defar ak yenn autoroute yenn tali yi waroon nañu rus aujourd'hui biir Sénégal ay chinois di fi liggéey loolu ñu waroon nañ ko jomm alors que sénégalais yi foo dem ci àdduna bi gis nga leen ni ñu xarañee alors que des entrepreneurs comme président Abdoulaye Sylla investir nañ ci loo xam ne tey lu jéggi dayo la pourtant chinois yooyu bu ñu jëlee projet ba pare dañuy jaaraat ci ñun ñëw sous-traité ñu ko autoroute illa Touba bi chinois ñoo ko gagné mais mais jël témoin ñoom Cheikh Saad Boumi ak ñoom Maam Omar Ecotra moo defar presque une bonne partie autoroute Ila Touba bi ci 115 kilomètres yi presque 75 kilomètres yi Ecotra moo ko defar murée yi fa nekk yëpp ñun ñoo ko ñun ñoo ko defar euh, aire d'autoroute bu Bambey bi fii ñoom Sadibou ak ñoom Maam Omar ñoo ko tabax chinois yi ñoo gagné projet bi jox Ecotra benn jël benn ñu ñu tabax suñu bos ñoom ñu tabax seen bos bi bureau d'étude bi ñëwee dana leen seen bos baaxul tojaat leen ko chinois yi tojaat seen bos defaraat seen bos te je prends en témoin je prends en témoin Cheikh Cheikh Sadbou donc loolu lu lu lu diis la ci ñett problème yooyu problème financement yi problème corruption yi ak problème accès au marché yi président si la dund ko il y a ans parce que ñu bëri sonal ko di tàllal loxo fu ñu dem loo bëgg a ko ñu ñu tàllal loxo mu dem ba en un moment fëgg dënam ne man Sylla laa sant ne lii il faut mu dakk fi il faut que ñu arrêté saa yoo bëggee fayeeku dara il faut que nga jox pour ñu jox la marché yi bu ñëwee ñu jox ko société étrangère yi ñu sous ko suñu doom yi di leen jox yu ndaw ndawaan mais bi mu commencé def loolu ñu song ko suñu saalu mi ngi ko doon wax sànq bloqué suñuy compte def ñu ay redressement plus de 22 milliards euh, note ñu note boo xam ne demoon nañ ba presque je pense que Pape suivre nga ko ba entreprise bi presque naroon na tëj mais mu gëm suñu borom jël lépp teg ko suñu borom ak jëm Sëñ Tuubaa nit ñi mënuluñ ma dara bu buñ dee yàlla nañ tawi xal noonu lañ ko xeexee juridiquement benn par benn étape par étape jël lépp teg ko suñu loxo borom ba nit ñi suñu borom joxee dëgg ñu delloo ñu suñuy compte delloo ñu suñu xaalis delloo delloowaat ñu suñuy projet bi mu génnee ci loolu nag ndey sukkay ci la président Abdoulaye Sylla ne lii dootu fi amati ne affaire bi reyante la mais lii dootu fi amati du ñu génn ci mbedd bi di sànni xeer du ñu toj këru kenn du ñu dem mais li dootu fi amati dinañ topp yoon ak ay solution ci la ne nañu sos kuréel boo xam ne bépp entreprise secteur privé bu amati problème boo ñëw ci kuréel boobu bu sa bët xonkee balaa sa rongoñ ju tuur ñu trouver solution ci la club 50 pour cent préférence nationale judd lu tax club 50 pour cent préférence nationale club 50 bi 50 boobu dafa am benn loi bi ko entreprise bi jooy entreprise yi jooytoo ba pare dafa benn loi bu ñuy wax local content loi boobu day imposer société étrangère yi chinois yi ak tubaab yi suñ fi gagné marché normalement 30 pour cent yi dañu ko war a sous-traiter société nationale yi maanaam bu dee projet 1 milliard la 300 millions yi dañu ko war a sous-traiter mais loolu ñoom duñu ko respecté et dañuy naxanteeg ñun dañuy gagné projet bi jël suñu rakk yi dañ leen gis fii parfois ñii di gas ñii di traité ay drapeau ñii di ay ñii di jaay ay béton ñii di jaay ay beton ba seen yëre yi ñuy fóot sax tubaab bi bu ñu fi ñëwee ak carburant bi ñu jël dañ koy calculer ci loolu ne sous-traité nañ ñu comme si ñun xëy na ñun fóot wala kii moo ñu moo ñu yellool président Blaise Diagne ne loolu dafay dakk non seulement 30 pour cent yooyu léegi il faut ngeen commencer di ko respecter mais dañu bëgg ñu jëlee ko 30 pour cent yóbbu ko 50 pour cent looloo indi turu pour cent boobu club 50 pour cent parce que suñu séddoowee ak ñoom 50 pour cent marché yi dina permettre déjà 50 pour cent xaalis bi des ci dëkk bi mais liggéey boo sous-traité pour cent bi dina tax nga dem ba laal xolu liggéey bi maanaam transfert de compétence bi loolu dina permettre stade bu rafet bi ñu tabax nii Diamniadio comme stade président Abdoulaye waat wala train bi ñu def Dakar TER bi wala autopont yi ñu fa def tey ni ñu ko defee noonu société sénégalaise boo waxoon bu ñu def ko njaaram di ko mën def amul benn société sénégalaise tey jii boo ne ñëwal tabax euh, à la place de stade Elimanel nga def fa société nga def fa stade bu mel ne bu nekk Diamniadio wala fii diggante fii Touba nga def fa TER bi duñ ko mën ndax transféré wu ñu compétence yi mais ba su ñu demee ba projet bu fi amati genn wàllu xaalis bi ñu forcé leen ñu sous-traité ko euh, doomu réew mi dina tax non seulement xaalis bi des fi mais ñu def tamit transfert de compétence su ñu waxee loolu souvent dañ naan lu tax duñ jël 100 pour cent yi sax ñu bañ fi ñëwti loolu mënuñu ko def mënuñu interdire société étrangère ñëw liggéey si fii dañu nekk ci monde bu globalisé ak internet bi ak ouverture bi doomu sénégalais yu mel ne président Blay Sila yu mel ne man ak ñeneen ak ñeneen. néew na tey Sénégal kër gooy dugg te amul doomam bu nekk à l'étranger donc suñu tëjoo rek ñooñu lay njëkk lor donc dañu war a ubbeeku dans le monde mais xam suñu bopp véritablement ñun ñu doon ba pare jiital suñu bopp loolu tax mu dolli ci préférence nationale bi loolu préférence nationale bi di signifier et préférence nationale boobu dafa bëgg ñu tàmbali ko par suñu gox-goxaat bu ñu jëlee maire bu mel ne Diourbel bu fekkee maire bi 10 milliards la am de budget par an préférence nationale bi ak dëkk yu mag yëpp ni ñu koy defee dafa war a imposer maire bi maire Malick Fall dañu ko war a imposer bu ñu amee budget wu 10 milliards ñu ne ko 90 pour cent yi maanaam 9 milliards yëpp projet yi ngi ciy def yëpp ay doomu njaareem ñoo ko war a ñoo ko war a jël à cent pour cent amuñu droit bu ñu fi def pavé wala ñu fiy def ay tali wala ñu fiy def assainissement wala di fi gas ñu dem di jëli ji ay chinois ba Ecotra sax waruñu ko jëli ji jam ñaaju dañu war a xool doomu dëkk bi bu ñu bëggoon tabax fii ci biir Dembélé fii Thierno Kandji benn lycée dañu war a xool entrepreneur yi nekk ci biir dëkk bi maçon yi nekk ci biir dëkk bi ñoom la ñu war a jox xaalis bi parce que dëkk yëpp noonu la ñu développé ah ay Rwanda yu bëri tey boo gisee benn maçon bu dëkk fii ci koñ bi nga war a tabax benn salle de classe wala benn lycée nga jël ko confier ko mu nekk projet bu un milliard mu am ci marge 30 pour cent kooku su liggéey liggéey ba pare am na marge 300 millions loolu mooy en 6 mois wala 1 an euh, ndey su di nga permettre benn mason boo xam ne bu daan xëy du am peut-être euh, dépense en un an mu nga jox ko benn école mu tabax ko en un an mu am ci poche am ci bénéfice am presque 300 millions loolu day transformer complètement complètement dëkk ci modèle boobu le président Abdoulaye Sylla bëgg dem bi ñu joxee ndigal nag pour ñu wër Sénégal gi yëpp pour wax ak coopérative de femmes yi wax ak société yi wax leen ne ni ñu rejoindre syndicat patronal ba muy club 50 pour cent préférence nationale pour ñu dooleel ko de sorte que président bu fi ñëwati euh, ñu jàkkaarlook moom de sorte que entreprise bu mag bu fi amati duñ la mën a ci noot et que problématique bu am ci secteur privé bi ñu mën ko régler wër boobu ñu doon wër euh, réew bi nag grand pape moo jur lii parce que fépp fu ñu dem partagé fa vision président Abdoulaye Sylla bi nit ñi li ñu njëkk a wax mooy lii ngeen bëgg a def boo leen àndul ak gouvernement wala yéen seen bopp ngeen nekk président doo leen ko mën def ndax ay loi la laaj ay règle la laaj rapport de force la laaj xëccoo la laaj parce que suñu bëggee imposer banque yi yu mel ne PAMECAS yu mel ne COFINA ñu dem poñe leen ne leen léegi à partir de maintenant ndey su koy su fa ñëwatee bëgg a leb un million pour def projet ployé bu la lebee 1 million na na ko jox un million bu lay fay mu fay la 1 million li mu ci gagné yëpp dugg ci poche am loolu il faut nekk loi ci lañ ñu commencé wax di kañ nañu li ngeen bëgg def baax na dëgër na et puis entreprise yi ñu rejoindre yëpp ñu ci bëri xaw a ragal ndax xëy nañu li ñu dund li président Abdoulaye Sylla dund ba fëgg dënam xëy na li tax mu gën a taxaw mooy ni entreprise am toll ak actif yi mu am à l'étranger mais société yu bëri bi ñuy rejoindre sax dañuy ragal bëgguñu sax ñu waxe seen ñu wax seen ci la wax ji commencé di yéeg ndànk-ndànk ñu ne kon président Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla doomu njaareem lu tax mënul dem jéem li ay moromam jéem am na ay président yu bëri yu fi nekk président xëy na bés jour bi ñu leen falee président ñoom seen bopp dañu dem seetuwaat tiit ne man nan laa def ba nekk président ñu ne ñooñu fi ñu jaar président Blay Sylla jaar na dix fois plus derrière mais pour terminer lu tax may insister ci ndey su koy ci problématique création d'emploi pour la première fois pour la première fois biir Sénégal am nañu possibilité définir ban type de président lañu bëgg te am nañ possibilité dem tànnal ko suñu bopp ndax opposition amatul président Macky Sall bokkul donc opposition amatul ñëpp ci yam léegi mais pour la première fois sénégalais ñun ñi ñëpp pour la première fois mel ni kuy fal chef de quartier et ñun ñëpp bu ñu ci contribué wu bu ñu toogul def ko ci yaakaar ne xëy na weccet bi ñuy lijjanti ci ko dugal suñu poche rek moom importance ñu nax suñu bopp parce que ku participer wul ci choix wu président bi fii ak cinq ans yi di ñëw ñu ñëpp dinañ ko regretter pour la première fois am nañ possibilité définir profil ban profilu président lañ bëgg ba pare xool ci ñiy jongante yëpp ñu tànn ci ki ci gën a adapté ci profil boobu ñu ñëw teg la fa ba pare poñe la nag ne la li ñu xëy na naxanteeg suñu maam Abdoulaye Wade ak suñu grand président Macky Sall sax yow duñu la ci fekk parce que au bout de un an deux ans boo ndu résultat ñu dal sa kaw définition profil boobu Pape avant président Abdoulaye Sylla di nangu li ko nit ñi doon ñaan moom ci boppam daf ko def ak ay ñooñam ak ay kàngam dafa toog def benn analyse mu ne Sénégal pour ñu définir profilu président bi il faut que ñu xool véritablement Sénégal lan la soxla ñu bind réew li mu soxla yëpp ñu commencé di jël benn par benn ñu koy baar ñu ne Sénégal lan la soxla ñu commencé tàmbalee lim ñu ne Sénégal est-ce que soxla nañu président bu ñëw di ñu jàppale ci diine bi déedéet. Sénégal diine bi kenn kenn du ko discuter di est que soxla nañu président bu ñëw di wax ci waxu merci bi ndax nit ñi yaru nañu war a yaruñu ñu ne déedéet ñu lim ko lépp ñu ne Sénégal am nañu diine bu baax am nañu ay merci yu baax am nañu suuf am nañu ndox am nañu naaj léegi am nañu pétrole am nañu gaz am nañu or am nañu zircon ba pare boole ci am loo xam ne moo gën a raar mooy jeunesse dernier recensement bi ñu génn ndey su koy nee nañu 75 pour cent 75 pour cent population Sénégal bi moins de 25 ans lañu am maanaam cent nit yoo jël léegi ci Sénégal 75 yi moins de 25 ans la ñu am et moins de 25 ans boobu soo defee moyenne d'âge bi 19 ans la ñu am maanaam amul benn dëkk bu ñu gën a taxaw physiquement bu ñu ëpp bu ñu ëpp jeunesse. bu ñu xoolee loolu yëpp ñu nekkoon Sénégal lan la manqué ba suñu rakk yi di jël gaal gi di dem ci mbëkk mi ñu dem xool tamit dëkk yi suñu rakk yi di dem dëkk yooyu la la ñu am te Sénégal amu ko bi ñu ko limee yëpp ñu jël dëkk benn France ñu ne France amuñu naaj amuñu maam borom Touba euh, seen mërs kiiw demeewul noonu amuñu gaz amuñu pétrole amuñu or ndox mi demeewul kii noonu bi ñu limee yëpp ñu ne kon France ñun am li ñu am yëpp France amu ko Italie amu ko Espagne amu ko Angleterre amu ko kon xale li ñu fay uti lan lañ manqué fii loo xam ne ñoom lañ loolu lañu uti fële ci la ñu rendre compte loolu lenn rek la mooy liggéey Ousmane mooy xëy dem liggéey xëy dem liggéey rek ndey sukkay la ñu manqué ci dëkk bi foofu la ñu définir profil ñu ne donc projet président bi ñëw xaaruñu ko muy xëy di xutba xaaruñu ko muy xëy di xool nit ñi li ñuy solo xaaruñu ko muy wër pétrole ndaxam xam nañ pétrole xaaruñu ko muy wër gaz liñ koy xaare mooy muy xëy suba ba ngoon assuré wu que bu mel ni Thierno Kandji bu ñu xëyee ñëppay daw liggéey doo gis kenn ci taatu garab yi ba pare très rapidement comme ni ko président Blaye Sylla di waxee très rapidement ñu mën a créer ay millionnaires ak ay milliardaires yoo xam ne ay vingt cinq ans la am trente ans trente cinq ans quarante ans parce que ñoom grand pape seen wàllu wéy na man sax Sadibou ñun ñëpp suñu wàllu wéy na mais objectif bi mooy ñoom booy zoo ñoom booy Pape Sylla vingt cinq ans trente ans quarante quarante cinq ans ñoom day cooy ñoom ñëpp seen wàllu wéy ñoom moom jarot sax ñuy wax président Abdoulaye Sylla nee na dëkk yi mu dem yëpp su demee ndey su koy yaramam day daw ndax day dem ay dëkk tubaab yoo xam ne moom day toog comme grand chef d'entreprise au Sénégal mais ñiy toog ci wetam Ousmane ay 25 ans la ñuy am 30 ans 40 ans mooy ñi ngeen gis ñu créer application yi nekk suñu téléphone yi ñi ngeen gis ñuy créer téléphone yi ñi ngeen gis ñuy créer objet yi ngeen di jënd euh, montre yëpp ñi koy créer dëkk yooyu dañuy jàppale seeni ndaw et à lage de 25 ans 30 ans 40 ans ñu nekk ay millionnaires ak ay milliardaires loolu mooy principal objectif u président Abdoulaye Sylla nde su koy Ablaye nee na li mu bëgg mooy en espace de un deux ans képp kuy gone peut-être ci zone bi nga am 25 ans 30 35 ans nga nekk millionnaire te loolu dafa yomb loolu loolu mooy yéeneem bés bu ñu réussir kër goo dugg nga fekk fa bu dee këru fukki nit la mu am benn millionnaire jeex na ndax bu xale yi commencé am as tuut comme ni mu koy waxee ne Sénégal bu jigéen ñi amee xaalis Sénégal neex bu xale yi amee xëy Sénégal nekk en sécurité donc objectif am majeur programme président Abdoulaye Sylla yëpp foo leen ñu fekk duñ ci sori dama jël temps expliqué leen fi seen doom seen frère seen cousin jaar mu xaw a gudd tuuti mais fépp fu ñu dem lenn rek lañ leen di fàttali ne yéenewu président Abdoulaye Sylla benn rek la mooy rendre riche le maximum le maximum de jeunes sénégalais dafa bëgg rendre riche sénégalais mais loolu ndey su ko yéene la de yéene la de yombul de yombul man ma nekk milliardaire sama rakk bi Aliou may ànd ak moom ma yéene ko tax mu nekk milliardaire c'est très rare foo leen dem ci koñ yi wala gox goxati wala ci dëkk yi d'habitude benn famille bu riche ngeen fay fekk ndax bu kenn riche rek day bëgg moom moom lépp parce que ragal na ne su ay rakkam wala ay frère am commencé riche rek diir ko mbagg ci politique et cetera loolu mooy tax tamit bu ay projet amee ci dëkk bi au lieu ñu jël un milliard projet boobu jox ko kenn ku nekk ci dëkk bi mu liggéey ko gagné ci trois 300 millions dugal ci poche nekk millionnaire commencé moom tam tabax këram def ay business du ñu am yéene boobu yéene boobu la président Abdoulaye Sylla bëgg a casser completement te xaarul dara ci nit ñi day xool aujourd'hui moom lan la mën a contribuer ci ci réew mi donc loolu laa bëggoon ngeen ngeen retenir ko di jégalu ci kàddu yu guddi mais président Blay Sylla fii mooy basam yéen boo leen comprendre bu leen nit ñi laajee ku dëkk Saint-Louis ak Kédougou laaj leen lan mooy club 50 pour cent préférence nationale kan mooy président Abdoulaye Sylla fan la jaar dama bëgg yéen ñëpp ni ma ko expliquer ni ma leen ko waxee ngeen waxee loo tax ma jël temps bu guddi bi expliquer leen ko di jégalu ci kàddu yu guddi yi ni ko Baye waxee ñu ngi dugg ci phase bu am importance mooy parenage bi parrainage bi mooy élection bi ñun xam nañ ne amul benn candidat ci ñi ñu gis ne ay candidat lañu ñoo xam ne bu président Abdoulaye Sylla jàkkaarloo ak ñoom premier tour waxuma la sax deuxième tour premier tour du seen morom loolu ñun xam nañ ko si léegi ñun xamuñu defet ñun xamuñu xamuñu defet grand pape xam na ci dara ñun premier rek la am premier boobu. dafa dafa am solo tellement que Aliou ñun si leen ni premier rek pap bu ñu mënu nekk premier sax dañuy gedd bàyyi dama ne premier boobu dafa am solo ndey sukkay bii mooy suñu fiche de parrainage ren état bi dafa décider pour éviter fraude yi ak genre ndey cooy jël ay fiche de parrainage dem di ko jaaye ji léegi candidats yi déposé presque mat nañu deux cent candidats gis nga li suñu borom def bii mooy fiche de parrainage président Abdoulaye Sylla mooy numéro un maanaam bi ñuy déposé ñun ñoo jël numéro un presque ci deux cent candidats lii mooy wane ni si leen ni ñoom dañu jël sax deuxième premier rek la ñuy jël donc euh, xamee leen ko bu baax ku dajeeg yéen ku dajeeg yéen di leen jéem a remplir loo ay fiche de parrainage boo xam ne amul numéro un bi mu ngi leen di nax parce que d'habitude duñu bind tur bi ci kaw duñu bind turu candidat bi dañ lay gis rek ne la Ablaye Sylla la ñuy parrainel euh, mais suñ ko bind mais fiche bi numéro 1 bi la président Ablaye Sylla fiche de parrainage am mooy numéro 1. li ñuy ñaan suñu borom mooy ngeen jàpp ci ñëpp bu baax parce que fi mu nekk nii ci candidat yi ñu gën a tiital la bokk et parenage bu propre bu set ndey su koy bu propre lañ bëgg may baaxum parrainage bu propre bu set ndax biir parrainage dafa am lu sew lu ci dugg mooy doublon yi. doublon yi genre ndey cooy gi dañuy dem parrainel waa kër Yéli dem parrainel waa kër Cheikh dem parrainel waa Thierno Kandji taxaw fu ñu dem ñu jox leen fa benn 5000 ñu parrainé fa. loolu boo ko defee di nga da lor sa candidat et fépp foo leen di dem day su koy di parrainel dama leen koy ñaan kumba fépp foo leen dem di parrainel nit ndewuli li nga leen njëkk wax mooy bu fekkee ne da nga parrainel déjà quelque bal nañ la ko parce que loolu danger bu doy waar la. ku fi fëgg sa dënn di jaay doole ne que man politiquement sama koñ mën naa indi 1000 parrains mille parrains boo ñu indilee 1000 wala 2000 parrains yoo xam ne ñooñ ñëpp dañu parrainel keneen bés bu ñu demee conseil constitutionnel di déposer suñu parrainage kooku suñu njëkkee jàll ñun bu ñu dugalee suñu parrainage dañuy rejeter suñu bos loolu lu doy waar lay doon maanaam di nga am peut-être un million de parrainage mais bu dee sa genn wàll gi yëpp parrain baaxul xëy na di nga fëgg sa dënn ne man indi naa parrain yu bari mais bu ñu demee conseil constitutionnel dinañ gis ne parrain yu la et eh, dañ koy wax kooku nga ne ko su fekkee da ngaa parrainel keneen bàyyil baal nañ la ko bés boo ñu parrainelee soo demaatee parrainé waatal keneen yaa ngi ñuy lor ndax kooku suñu suñu njëkkee jàll ñun bu ñu demee conseil constitutionnel suñu bos dinañ ko rejeté et bu ñu ko rejeté conseil constitutionnel dinañu génne liste bi ñi nga xam ne dañu parrainel ñeneen doublon dañu koy génne ñun dinañ xam bu boobaa ne yaa ñu lor donc képp ku parrainel keneen déjà soxla wu ñu sa parrainage sept presque huit millions de presque huit millions d'électeurs la huit millions presque sept millions et quelques et quarante quatre mille rek lañ ci soxla donc et quarante quatre mille yu sept huit lañ soxla donc xàmmee leen ko bu baax et incha allah ñu bootu ñun ñëpp ci suñu ginnaaw mag grand pape la ak coopérative yi leen bëgg a jàppale famille yi bëgg a jàppale yëpp ñu jéem pour ay parrainage de qualité jébal ko suñu suñu kilifa président de loolu il faut que ñu leeral ko bëgguñu àdduna da ngay choisir say combat am na combat yoo xam ne combat yu ndaw la ñun dañu am combat bu mag mais comme dañ su koy posé na question bi fii la président Abdoulaye Sylla juddoo yaroo fi di fi def lu bari jarul ñun ñi ay rakkam day dis ñuy wax li muy def ci dëkk bi bi ñu déggee inondation yi am boobu mi ñu fekk ñu ngi euh, nettoyer Touba parce que ça fait sept ans chaque année deux semaines avant màggal gi président Abdoulaye Sylla day envoyé matériel bi yëpp Touba inondation bi nekk lu metti ñun en tant que doomu njaareem ban sama gi dëkk HLM Grand Diourbel ñu ko ñu commencé def def ay action ñun ak Aliou nii ça fait des années ak suñu association man maay président bi Aliou mooy secrétaire général bi Ndeye Soukey ñuy mëne suñu action en tant que doomu Diourbel ñu bëri ñu sollicité ma ma ne leen entreprise entreprise mënul ñëw directement gis inondation mu ci dugal loxo parce que état bi dafa am nu mu koy organiser waa ONAS yëpp ndax parfois nga ñëw sax dina ndox sëkkal kenn après ndox mi basculer daanu yàqal yàqal ñeneen donc entreprise privée buy intervenir dafa war a intervenir sous euh, autorisation maire bi ñu ne léegi nañu bàyyi ñu xool comme mairie bi mi ngi yëngatu def ay mbiram su demee ba soxla entreprise privée yi moom ak ay ñoñom dinañu dinañu woo ñu teg ci ay deux semaines ñu dégg appel maire bi def appel ne dafa soxla doomu njaarim yëpp ndax mbënd bi ëpp na ko doole ñu dégg ko ñu remonté ko man personnellement ma def le point ak suñu kilifa président Blay Sylla mu ne ma lu mu gën a gaawee Assane dès suba dépêché leen ce qu'il faut ngeen dem jàppale leen man sama bopp ma déplacé wu ñëw ñu dem mairie bu maire bi recevoir ñu secrétaire général moo ñu recevoir ñu jóge ci moom dem ci préfet bi jóge ci préfet bi dem ci gouverneur bi ñu ànd ak gouverneur bi wër dëkk bi yëpp xool li ñu fa war a mën a def yëpp ñu xëy le lendemain gouverneur bi convoqué région bu mag ak préfet région bi yëpp ñoom ñu ñëw saytu ñoom ñu propose plan d'action ñu indaale suñu équipe technique euh, notamment ay équipe étranger sax lañu indaale woon ñu xarañ ci domaine assainissement ay portugais lañu indi woon ñoo xam ne am nañ expérience ci loolu ñoom lañu indi ñu xool ñoom ñu waraat dëkk bi yëpp ak suñu jeune ingénieur sénégalais ñu waraat dëkk bi yëpp identifier li ñu war a def yëpp ndey su koy bi ñu paree dell le lendemain ñu indi matériel bi yëpp ci lañ tàmbali liggéey bi bi ñu commencé liggéey bi dem ba gàmmu gi ñu ne foog ñu may suñu équipe yi ñu daw rapidement dem gàmmu ji ñëwaat équipe yi dem gàmmu bu ñu gàmmu jiyee ba ci suba sa Abdoulaye Diouf mi yore liggéey bi ma ne ko woowaatal préfet beeg maire bi ne leen ñun pare nañ pour ñëwaat continuer liggéey bi liñ ci am comme mbetteel loo xam ne neexul ci xol euh, dañ ko commencé woon dégg parce que comme ñoom dégg nañu ne président Abdoulaye la day présenté wu sentiroon nañ rek déjà ne bi ñëw di leen jàppale si ñi ngi doon commencé di gis yu sew mais ñun yooyu attardé wuñ ci woon yàlla moo taxal ñuy def ak suñu ndigalu président xëy na dégg nañ ne président Blay Sylla day présenté aux élections mu gêné leen mais bi ñu dellu siwaatee ci gàmbu gi woo leen laaj leen euh, kay fan lan moo fi des ak fan lañu mën a tàmbaliwaat dañ nañu baax na lépp baax na léegi ci dëkk bi affaire bi nekk lu ñu lu ñu diis ñu leen ah déet ñun marché ñu ngi woo waa làmb ji li ñu fa doon def ñun pareeguñu am na lu ñu fa bëgg defaat côté làmb ji ak côté route de Bambey ba ca kàmb suuf ndey sukka yi ñun suñu bopp doomu njaareem lañu ñu ne leen mais am na ndox ñu war a dindiwaat am na ñu war a nettoyé waat zone euh, famille Kandji bi defaraat nañ leen ba ñu mën a gàmmu mais am na lu leen fi bëgg defaraat école yi suñu école yi nga xam ne man foofu laa amee BFM CMT ak yeneen école yi bëgg nañ leen jàppale école euh, mi ngi ubbi ñu ne ñu déedéet baax na noonu euh, bu ñu leen soxlawaatee nañ leen woo ku déplacé nag ay matériels yoo xam ne parc matériel écotra bi rek dépassé na 100 milliards. nga déplacer ay engins yu bari ak ay carburant ak yooyu indi ko def ko gratuitement ndey su koy bëgg jàppale nit mën na la lépp baax na loolu lu lu lu metti ci xol la parce que doo forcer donc loolu rek a tax ndey su koy te amuñu droit amuñu droit donc man maa ordonné équipe yi donc woo nañu autorité yi war ñoom ñëpp woo nañ leen du ma leen cité mais ñoom ñëpp xam nañ ko autorité yi ci war yëpp woo nañ leen ne leen est-ce que yéen a wax loolu ñu ne waaw waaw ñun wax loolu parce que pour le lépp maîtriser nañ maa jox instruction équipe yi ne leen jël leen matériel ñu delloo ko jam ñaajo non seulement delloo nañ ko jam ñaajo mais tey ci suba ñun ñu ngi pikin ak jàmm gën di jàppale waa Pikine ak waa jàmm gën parce que côté boobu tam am na ay am na ay inondation donc Pape loolu moo xew ci dëkk bi donc looloo tax ñu delloo engins yi et duñ ko fi indiwaat ndax ñoom ñoo am responsabilité bi ñun am nañu fit ak ñeme boobu duñ fi indiwaat benn matériel ñu ko laajaatee loolu man maa jël décision boobu parce que ñàkk respecté waa dëkk bi la ak ñàkk ñu respecté ñun ñu yor suñu matériel nañ leen bàyyi ak waa population bi ñu régler seen seen problème loolu ñun am nañ fitu def ko parce que suñu matériel la